bi mënuñu kaa tenir tey dañ ko war a ba suba au minimum pour ñu mën respecter article 46 règlement intérieur règlement intérieur bi nag man binduma ko waa yeewi binduñu ko waa taxawu binduñu ko euh, benn binduñu ko assemblée nationale bi yëpp ñoo ko bokk yaakaar naa ni suñu doyen yu fi nekk ñoom Seydou Diouf ak ñoom Cheikh Seck war nañu mën a confirmer loolu donc euh, dama bëgg ñu respecter règlement intérieur parce que dañu ne lu tax ñuy reporter élection yi argument ñu exposé de motifs parce que dafa am ay jalgati yu ñu gis irrégularité ci processus électoral pour nous ko defaraat moo tax ñuy un report di prolonger euh, mandat président de la république mais comme nous avons ñun dañu bëgg a nañu d'abord à l'interne qu'on balaye devant notre propre porte affaire yi jaar yoon loolu moo taxoon ma cet article 46 du règlement intérieur ba nga xam ne moom mooy wax ñoo en tout cas mën a tenir séance plénière dañoo war jot rapport et avis des des commissions parce que affaire bi ñoo ngi ko accéléré benn accéléré boo xam comprendre ñu ko parce que démb maa ngi koy wax démb nañ ñu woo conférence des présidents à 11h 11h ñu ñëw toog ñu ne euh, commission ñu jox euh, la parole au président de la commission des lois euh, Moussa Diakhaté mu ne. Euh, commission ba 15 heures nous tenir dimanche imaginez dimanche nous woo 11 heures nous la commission ba 15 heures nous tenir donc là déjà gàtt notre nous tenir commission ba pratiquement 18 h 19 heures donc ci commission ba bas séance plénière on va le tenir à 11 heures ça veut dire que nous ko ñu ko mais règlement intérieur parce que nous avons ne hein, entre la distribution du rapport et la séance plénière il doit y avoir 24 heures le président du groupe parlementaire Abdou il xam ko Moussa Diakhaté vous nga ko xam président l'Assemblée nationale vous war donc le règlement intérieur le règlement nous on n'est pas là pour débloquer, pour bloquer mais quand même on demande l'application stricte du règlement intérieur et sur ce point là gisuma une interprétation lu ñu nous nous suspendre mooy ñu séance nous votons demain à la même heure pour nous distribuer ce rapport ce, euh, ce rapport de la commission des lois je demande simplement l'application du règlement intérieur Nous appliquons le règlement intérieur bi groupe parlementaire Benno manque y groupe parlementaire Liberté Démocratie Changement manque également le groupe parlementaire Yéwi et tout le monde inscrit je vous remercie merci